ah président Macky Sall itam xam ne Covid bi am na laal ci ay njabootam mu am nag ministre ram boo xam ne mooy jiite jigéen ji ñu koy wax ministre de la femme Ndèye Saly Diop Dieng mu nekk jigéen ju jàmbaar nag jigéen joo xam ne benn góor yóbbulu ko dara. muy jigéen ju mën góor mooy Ndeye Saly Diop Dieng mu jóg ci àll Fuuta bi ci àllu Tamba bi fépp foo xam ne mën naa ne président Macky Sall ronu na ko ci coono rek Ndeye Saly Diop Dieng def na ko ba ci bi mujjee fii mu jël trois régions dakaar Thiès jurbel mu jël ci département yi jóg sol fii nag ci bi mu fi ñëwee fii ci Touba vraiment ma ànd ñu bokk gunge ko mu sol di def tànkam yi di ko dugal ci biir ndox mi ci dimbale askan wi dimbale jigéen ñi mais président Macky Sall bu edd alimentation yi ñëwee def ne ñëpp mënuñoo am dina am ñoo xam ne nag duñu am kon nag ñëpp mënuñu woon a am xalangu dajul suuf gannaaw xalangu dajul suuf mu tàmbalee ci li nga xam ne ah ñii Euh, Covid bi laalul APR Covid bi dafa ñëw laal Sénégal mu boole ñëpp dimbali leen amul opposition amul pouvoir mais damaa gis ne bu fekkoon ne opposition bi ñoo am nuñ taxawee kon président Macky Sall dina am défaite Ndeye Saly Diop Dieng dina am défaite mais nag alhamdulilahi rabil alamina ba nga xam ne ñi nga xam ne ñooy njabootu président benn ci man man de awma ci financement yi te bëri nañu amul ci financement yi waaye ñun njabootu président lañ loolu moo lay xamal ne politiser wuñu ko dañ koo def pour askan wi yëpp. jigéen ñoo xam ne ñu impact lañ ñu dimbale leen mu indi fi téeméeri millions yu manqué ñaar fukk ci ñi nga xam ne ay jigéen ñu jàmbaar lañu te nangu ñu jàppale dañoo mën a liggéey te Covid bi laal leen te rikk nag te gis ngeen ni mu ko leblee ak ni mu demee nan la demee 500000 la yu amul benn intérêt ba pare may leen cent 250000 yi. ba may leen deux 250 000 yi ngeen war a fay cinquante 000 mayaat leen yeneen 3 mois pour ngeen soog a tàmbalee fay rekk ngeen góor góorlu liggéey fay ndax am nañ ci yéen yaakaar ba tànn leen ci jigéen ñi ne yéen macha allah ay ci développement ngeen di dox ñu jox leen ko ngeen di liggéey kon nag Ndeye Saly Diop Dieng ñu ngi leen di jaaraamal di la di la di jaaraamal itam président de la république di di massawu mboolem koo xam ne. dafa dafa loru ci biir Covid bi. de la femme def ci liggéey bu am solo ñoo ànd ak ñun ci tournée bi nga xam ne 16 communes yi yëpp ministre de la femme wër wër na ko ci dugal fa ay masque ba nga xam ne ci monde rural bi kenn déggu fa benn feebar mais nag une femme un masque bi am na lu mu ci liggéey ci de ci préfet yi ci sous yi ñëpp wër nañ leen joxe fa ci mairie yi joxe fa ay masque di jaaraamal nag ma madame mbay mi nga xam ne aussi moo ko jiite woon sonn ci loolu moom itam mosul des ginnaaw ci gunge boobu nga xam ne def ko ànd ak ministre de la femme ñu wër commune yëpp yóbbu ay masque ba nga xam ne gis nga fii ci Touba feebar bi wàññeeku fa nag mais grâce à xalaatu ministre de la femme Ndèye Saly Diop Dieng ci euh, une femme un masque bi nga xam ne def na ko mu liggéey ci nag liggéey bu am solo te noonu la ko defee woon ci Calabas. dégg nga pour wàññi loraange nga xam ne jigéen ñaa ngi koy loru ci banque yi nga xam ne ñu ne nañuy calebasse tubaab ñu tuddee ko ñetti caabi tuddee ko accès lépp rek ci développement jigéen ndimbal yi nag dimbale nañ maire yi dimbale nañ euh, hôpital yi dimbale nañ euh, nu mu tuddati euh, dimbale nañu société yi ah dimbale nañu lépp chauffeur yi dimbale nañ képp koo xam ne loru na ci Covid bi président doyloo Ndeye Saly ni ko demal ma ci jigéen ñi Ndeye Saly Diop jóg taxaw ci jigéen nag ànd ak ceeg sawarte ànd ceeg gëm-gëm ànd ceeg bëgg ko ñu ngi koy félicité bu baax. mu nee naa ba mu yoree ministère ba ba léegi man dama Macky ku ma xam xam ne man Macky rek laa bu Ndeye Saly Diop Dieng doxutoon ci gëm président liggéeyal ko duma ko xool duma ko jege mais Ndeye Saly Diop Dieng bëgg na président te mu ngi koy liggéeyal te jàmbaar la.